Doudou Yandé tey deux personnes yo xam dañ doon mbëkki marine nationale teg na leen loxo fofé ci Mbour gi. 276 ngay xam ne kon immigration bi. non ndakagul euh, gars baye bàyyiwuñ gay baye gars yi bàyyeeguñ ba hmm, donc euh, lolu information la buñ leen di jox. dañu ñëw nak directement ci sen émission avis de recherche mooy ñi nga xamante ñu ngi leen di sét te gisagul leen. donc boy bi sol mayo paris bi bay dou diande boy bu ngi tuddu modou ñaar ñaan waaw modou ñaar mu nga dëkk ba saloum oh hmm? Oh, oh. hmm? dëkk dëkk mbossé waaw daara mbossé daara mbossé ci saloum modou ñaar ba tay kenn xamul ci lu mu ne ba ni ba ni yeen ñi nga xamni yeen yéen ngi koy sétane ay mbokam jaaxle nañu bu fekke gis ngeen ko fenn partager leen suñu numéro nek 78 528 54 24 ñu mun a jokkook ak ay mbokkam yor nañu seen numéro ak lépp. mu mun a xool kooku di Modou Niang. Modou Niang kii mu ngi tudd mbay Niang. Mbaye Niang Mbaye Mbaye Mbaye Niang xam nga ñi ay doomu bàyyi lañ bàyyi du Sénégal ngi jeex. l'heure est grave. Sénégal a ngi jeex. ah euh, mbay Niang mu ngi dëkkee région bu Kaolack département de Birkilaan. Oh, kii mu nga ba Birkilaan. xale yi xamuñu géej xamu leen temps bu baax. xamu leen gaal gu baax yéen waa mbiir kilaan yéen waa Kaolack tee leen seetaan étoile jamono ñu leen di dicté ñun géej gaa ngi nii tout près gaal yaa ngi nii xam nañ mbir mi dafa bëri business dafa bëri diin dafa bëriwu jarul nag ngeen may oo di laaj bugg gaal gu baax seetaan leen rek ñu jox leen ay information joxewuñ gaal gu baax ba déedéet déedéet déedéet mais dañuy waxtaan ngir tànk bi ak a saayak fi ngay teg set tànk waaw xool gaal gi nga war a dafa yéeme. kii mu ngi tudd booy bi sol maillot Paris bi ak jiin bu bula bi moom tam mu ngi tudd Modou Gueye. Modou Gueye waaw Modou Gueye. Euh, moom kenn kenn kenn gisagu ko Modou Gueye nag ñoom am na gaal goo xamante ni duur yaande mooy gaal gi ñu leen di wan ci écran bi gaal gi ma xool fu mu tëmbeeti tax mbaay du mu ngi jógee Abina Abina Abena ca Casamance abina ca Casamance gis nga xam nga ah, Abena. bu baax xam naa Abena. am nga foofu tey dina dugalee gaal Abena. waay yow encaissé la. Mm. ne la kaay Abena da nga yaakaar ne foofu la bant yombee. kon ko nga naan gandi gaal la. da nga naan gandi gaal la. fekk yoo léegi nag dafa am gaan ku fa tëmbee. jaaroon côté Mbuur mm. ak Joal. jël yëpp fi ay nit. Mm-hmm. kenn gisagu ko. mooy gaalu vert blanc bii. xaw ma chocolat vert blanc. ba tey léegi nag li ñuy werante mooy. ndax gaal gu bees gi la gaa yi tëmbal. wala gaal gu màgget gii ci suuf. ndax moom la gaa yi tëmbal. gars yi nag nee nañ gaal ko magas gi lañ tëmbal. mais l' essentiel mooy am na benn gaal boo xamante ni mu ngi teer tey Maroc. gis nga ko mooy bi yor tànt bi nii te nit ñi nekk ci. mais ba tey xamuñu ndax gaal gi tëmbe woon. abena la wala déet. kenn xamoo ko. du diyaande immigration bi. bon dégâts yi doy na waar. maam ji am na si ñoo xam ne la woo ne la woo. non na waar. toog rek boo gisoo sa doom. Hmm? Ah, waaw waaw. du diyaande xale bii may tëjee tey moo sol kab bi ngay gis. sol euh, bodi bi nga xamante ni am na noir blanc. militaire militaire. xale bi mu ngi tudd Mamadou Gueye Baara Mamadou Gueye Baara ñu gën ko xam ci Baara Gueye xam naa Mamadou Gueye la tudd ci carte d'identité mais Baara Gueye lañ koy woowe Baara Gueye xale bii ngay gis Doudou Yandé xale bu am avenir ko xale bii ngay gis Doudou Yandé xale bu yaayam yaakaar Baara Gueye yaayam da doon jaay foofu ca Kaolack balaa Baara Gueye di xëy dina xëy génne ban yi mu lijjanti yaayam jàppale ko ba pare dóor a xëy dem bu wàccee jaaraat palaasu yaay ji lu mu for jox yaay ji ma lii jàppale ko jëlaat baa yi dugal ko yërëm yaayam mais gis nga duuti yande oh. yërmande tax boo yi dugg Baara ay toogal toogal toogal bu la kenn influencé ba nga actuellement yaay ji xamatul ndax mu ngi dund xamul ndax mu ngi dee xamul ndax moom yaayam bi boppam xamul sax ndax ci ay gént la ne. ndax gën a garaaw immigration bi. Euh, li muy li muy wane ci àddina bi moo doy waar. xam nga dinañ di ñaari tolof tolof. sa yaay njaayam dootul maase. xelam dootul nekk sa yaay nekkatul. comme nekkatul en cent pour cent. moo ko gisee da nga xam ne kii am na lu mm-hmm. ma lii. donc du yaade li ñuy waxaat rek mooy na doomu aadama yi xeex immigration naka lañ koy xeexee mooy bàyyi leen soxor. du yaade ni ko mëna xexé xeexee nañu bayyi soxor duudu yaane billahi wallahi tallahi amna ñu ñuy seetaan duudu yaane nek ay millionnaire di job nga am ay kër am ay carte banque sétan sey doomu di jaay duudu yaane bi fanaan ay ndet yow di tux ay yamba di gains di gains ndax désespoir xel mi dem ba koku buggatul dara te ko ci gis amna mbokk bu ko mëna baaxa baaxa baaxa baaxa ndax tey jii benn affaire. waaw tey continué waa yu bëri problème bi mun na la limal ba si hmm. ñoo xam ne. waay waay waay waay waay macha allah. wallaay wallaay. mais ndimbal gi anamu. xoolu ndimbal comme xoolu ndimbal hmm. ñeent ñeental nit ki gis xam ne kii. Hmm. maak moom ñoo bokk. lu tax mu nekk si tolof tolof yi. taman defuma ko kaay. mu ñëw. ma nekk kat jaayal cerax yi. ci dëgg am si 500. waaw moom mais Doudou Yane est ce wax ñun quatre vingt quinze des musulmans est ce que dëgg la si diine folklore. non des na. diw wax na nii xoola coowu Cheikh Omar Diagne bi gis kenn ku nekk jóg bindum diw dëkk mi nii laa coow te boobu ay nit ñaa ngi dee nit ñaa ngi dee fii si géej ana an lam te ñoom yor nañu xaalis koo ci gis am na ku mun a xool waa Mbacke ñaata nit a fay jógee léegi ñoom ñu ngi xeex affaire boo xam ne ñoom ndax dañoo wax ñaata nit ñaata nit chaque jour chaque jour maa ngi jógee Touba te bu njëkk bu njëkk am na am na lu ñu doon force yi ubbee waaw ñu ne kër gi nga mhm. mhm. ñu xeex ñoo kenn kenn utul ngeen bokk ndee ak waay de daa ne comme dëkkandoo yi quoi ngeen mhm. jël fa kenn ba waaw koñ bépp doon ay moodu moodu ma dem foofu jamono bi doy na oh. waar jàppale doomu aadama yi duudu yaande yow gis nga ñun ñi liñ kenn te kenn jox ma boo ko xoolee si Jili Njaay yow da ngay ñëw photo yii ñuy dugal. kenn joxu kenn joxuñu. mais def te yàlla tax ñuy def te yàlla tax. Ah. mais finalement lan nga si jëlee lan nga si jëlee da ngay tëdd ba guddi. ñu lay jéem dugal ci kaam. allo sama waa ji nag damaa bëgg a mbëkki. gis nga xam nga xaalis baa ngi nii. wóor na ni kii di wax nii. amaana soo moytul ku lëkkaloo kom de tenue la. Sénégalais la day def benn enquête bu ndaw. jëlaat dugal ci kaso ba ah. ah nit ñi léegi kaso bi lañ leen yéene ak torop. moo tax lu baax baadu wala kaso ak torop. lu baax moo yombatul. saa nga ni ah ñii kat dëkk bu ne ñu ngi fay dem. ñii ñu ngi jël nit ñi ñu ngi leen. accompagner ñu dooleel leen. ñu ñu ñu ñu yokk seen formation dooleel leen jàngal leen financer leen pour nit ñi mën a toog mais non. su ñu taxoon man ak yow tey ñu yeewoo ji rëbb. am na loo wax léegi mu am am na lay seetaan ay mil xaalis moom di jóg. waa léegi lu tax mënuñoo ñëw ne jiini hmm. waa li ñuy seetaan nii ñun ñëpp ñu bokk ndey ak baay Sénégal ah ñii di sanku si géej gi ah waa léegi lu tax ñu mënu ñëw jël li nga xam ne mooy suñu moyen bien sûr dëgg la nag mënu ñëw ànd ak yow gaddu saak mm-hmm. topp tefes mais mun nañ la ne ji am mm-hmm. boo gisee nangam waxal mm-hmm. am pour mu yomb si yow boo munee dem bërëb nangam dawal am sa dépasse kër nangam mais ji ñu ngi lay enquête si suuf di la boole benn duudu yaa di naan fexe koo fexe fexe fexe koo topp. ndax yàgg yàgg xoolal xaalis la. li muy def li muy def li muy def xoolal ma lii. Ah, waaw kon non xaaral de doomi aadama. non Sénégal nañu xoolaat suñu ngëm. Oh. Sénégal baax leen. Sénégal dimbali leen seen mbokk yi. kenn ku nekk na dimbali mbokkam. nañ jël xale yi toog. kenn ku nekk am na mbokk bi lu mën a dimbali. waaw xale yi ay jàmbaar lañ. baax yaa ngi jaay darkas bu baax yaa ngi raxas oto bu baa xale yaa ngi ci mbay mi xale yaa ngi ci géej ah. xale yaa ngi ci yanu yi xale yaa ngi ci lépp ñàkkuñu jom bàyyiwuñu dimbali leen xale yi mais romb ak seen oto da ngay gis ku romb ak oto sax xeeb nit ki ni muy liggéey non alors xool set mec la ñoom ñu ciy def waaw waaw waaw te ko daan doon mais nag am nañu bon bu waaye bu baax a baax a baax parce que alquraan karim am nañu foo bon set influence théâtre yi nekk ni ah. ñu wane la senegal boo amul bokk bok ñu koy dund tamit kilo la ko won warate kat yi gis naa maa ngi ciy suñu mbokk Omar Sall eh, astafurlah Alioune Sall moy nit ku baax jour bi sama waji diko di Seydou Diop nekk Kafountine waaw ndaysan di delo oustad Alioune Sall Alioune Sall jeki jeki ni sa jabar waro jékki jeki këy te mayoo ko wala ñatti fan yu ne mayoo ko bu bes jabar ji wok ko ni ginaaw sharia ngay deglu Ah, Alioune Sall nee na ñetti fan yu ne da ngaa maa war a jox benn dix mille bu bees te boobu sa waay géej gaa ngi muy daw départ ah fa la jaar euh, ni këram kenn dootu fa dégg nga oustaz Alioune Sall ah ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yokk wér muy oustaz bu baax day foo rek mais mais yaa oustaz yooyu ngeen di wax mu ngi xaw a yàq famille ah jigéen ñi seen tolluwaay dafa doy waar hmm? dafa doy waar waaw bàyyi du daal ndénkaane bi waxal askan bi ñu dimbali wante maam ñu ngi ñaan yàlla Sénégal tey ñi tane nañ gëstuwaay ñi tane nañ xoolaat ngir yàlla maanaam liy xew nii si mbëkk mi hmm. ah am na nañ ko mën a dagee waay est-ce que xam nga ni xale bi ma lay wax papaam dafa gaañu déggati nga yaayam ne ne ku néew doole te mook yaayam la woon te loolu ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata nit lay ispan yaade albagaaj mais xoolal am nga ay mbokk yu la war a mun a jër coppet ñu xoolal sa kaa boobu xew xew tëngéej xoolal boobu kooku nga xam ne bi yaayam génnee àddina dañoo mujjee dem si ñuy beese yàpp ñu beese ba yàpp seen yaakaar yëpp dem jaayante réer si kii. jour bi ñu ko waxee am na mais gouvernement bi yéen lan moo tax sax yéen suñ numéro jëlu leen ko ni kaay yi ngeen di gis. waaw nañ nañ nañ leen fexee jël ñu ñu porté leen yóbbu leen foofu noonu ñu dooleel leen jox. ndax immigration bi ñi dee dee nañ mais ñi am nañuy sukuraat fii. waxal loolu tamit ji daa war a leer. allo daa war a leer loolu daa war a leer si kaw. président Ousmane ah, ak Basirou Diomaye Faye. bàyyi leen ñii di leen di. waxanteeloo déclaration politique ak ay dosodur xamoo Khady Diène Gaye non Khady Diène Gaye waaw mais tamit lancé ko si waaw mu xam ne ah yaa ngi def ay jéego waaw waaw waaw ko mënee jotal ko mënee jotal mais mu ngi fii mu ngi ñëw di ñëw di ñëw di génn da ngeen gisee bu ko mënee jottali te pourtant mu ngi seetaan dëkk Joal xam ne Joal fii la Khady Diène Gaye yow ku war a mun a porter combat bi nga porter jotal gaay comprendre nga xale yaa ngi ci tapé yi di waaj itam ñëpp a ngi waaj dëkk ñu des sa dëkk la waaw war si na mën a ñëw ni ñan ñooy def lii boole ñoo kenn ñu dem dox loin dem ay Vélingara xool xale yi nan la ñuy jaayee seen nag di ñëw kaw Kaolack def sensibilisation ñi béy ñi perte ñu dimbali leen soble gi ba soble gi ñëw ñu rencontré seen toog di seetaan mais xam nga benn waaye jili bi nga béy ba am cinq hmm. papa yëgul kenn yëgul waa yoxosu oo oh, du bi ah, ne allo ah am na daal kuy teg ah. am naa cinq cent hmm. rek ndaw ak sa cinq cent da nga béy nga quatre mois quatre mois nga ko roosee gagné cinq cent mille yooyu bàyyi woo sa ginnaaw dara da nga leen ba ñëw ne mes indi cinq cent ko si gaal gaal gi yem. gaal non Doudou Yandé wax naa ko. dëgg la koo xam ne man damay toog man mun naa koo diir gaal Doudou Yandé bu ñu nekkoon léegi tey eh. ñu dugg ci xaalis bu ñuul bi. Eh. ba parce que gars yi da ngay ñëw ñun la ah ñun mun nañ la yóbbul gaal. waaw ngeen waxaale. dëgg maa waaw waaw. ma ñëw daal ay boo yoo xam ne maa ngi leen yebee Ville Ngara ñuy fan. parce que suuf mënuñoo gis gis ndox moo ñu ngi fii du ma génn daal ñëw indi leen teeral leen ñu perte seen xaalis. xoolal ma ay xale yu ndaw di dee. xoolal ay mag di dee. nit ñaa ngi boor seen doom yi dugg si gaal yi. l'heure est grave. ji Moustapha Diop bu am nga ci paar. summil sa weer yi jour nga watu bàyyi sa karo gi mu sët. nga jàkkaarloog nit ñi waxtaan ak ñun. immigration bàyyi leen débat politique. bu yàgg xooma Makhtar Sarr ñun Walfadjri la ñu am. ak Seydina Omar Ba sama xarit. bàyyi leen politique politique politique. l'heure est grave wax ne nag nit ñi ci immigration état na génne xaalis ak li ñu leen financé leen ñi nga xam ne ñàkk nañ seen i doom ak ñi nga xam ne gisatuñ seen ak ñi dooleel leen am na ñoo xam ne génn nañ seen kër am na ñoo xam ne seen tas nañ am na ñoo xam ne duudu yaande dundatuñu gisatuñu dund xamuñu ah? sax da maanaam affaire moom non c'est pas possible ah? acila duudu yaande a ah, naa ni kon lii lañ leen indiloon buñ ci wax ba sonn suñu xol day jeex ñu leen di wax ni na gars yi gën a partagé nag te maara yi nga xam ne tamit aussi xam nga mafia bi daa yaatu waa ku maara xam nga fa koy fekk waaw faa waa faa jaal tout trois waaw mais waxuma leen nag ngeen dem fa naan dañoo bëgg a bëkki de wala kii wala sama doom daa am bëkki dem non yooyu moom amul de digga ko kenn nit maara yi am na ñu mën a faj képp koo xam ne sa yaram day métti wala dañ lay yàq wala yooyu boo defee di tout wala nga jël sa feebar lay waxee kii feebar waajal waajaayu mbëkk ma de waaye nag déggu si maaraay rek ñu naan la fi mu nekk daal lëndëm daal lëndëm dañ koy la mën nga dëkkee raasaat. kese ji la def loo xam ne nag Sénégal yëpp ñu lay félicité te yal na si yàlla. Ah, amiin waay baay ndax maanaam tey dafa yi ah. nga wax nii. Ah. yaa ngi xeex xeex bu am solo. mais maanaam gars yi dañ la gëstuwaat tamit yow. dafa jot ñu gëstuwaat la. boole la si affaire bi nag. merci beaucoup bu soobee kontaan na ñi réer yëpp yàlla nañ. yàlla nañ maaraay yi naxaatee yàlla na leen yàlla sàng. Hmm? soxor ngeen lool réeral nit réeral ngeen jaay loo ko ooram def loo ko lépp te ko saraxel bee jéen ak saraxel lii ak saraxel yàpp lekk lépp du jaaduwul. jur léegi ñu la bu wax ak